war am responsabilité wu yàpp plus de 25 personnes ba 60 personnes ni muy dawalee waye bala ñoo sori fofu dañuy waxtane kooku ci boppam di dawal nan la def ba am permis ndax jotul transport en commun ñu di leen defal formation bañ leen rek jox permis ndax permis ni koy amé dafa yomb té limay wax fu leer la ko teg état bi responsabilité la ci même bu fekkente ni moom ñamuy day recruter ay nitam teg leen fa ni leen liggéey leen ñoom ñuy def lu leen neex ñoom ñooy responsable parce que carte grise bi nga xamante ne nii moom la policier bi war a xool xam ni oto bi mënul yegg jam ñaajo carte grise boobu service de mille lan la koy joxe ñu ni léegi lépp dañ ko numériser mais terewul la daan am service de mille bu njëkk ba léegi nii moo fa am te ku mu neex nee ma ñëwal woon ma preuve preuve bi mënul weesu ma taxaw ci tali bi oto la du am feu signal du am le téléviseur muy gauche muy droite du am bu milieu bi preuve mënul weesu auto romb la jël ay photo sëriñam ak ay photo mbeur taf ko ci parabrise ba mu fess kooku lan lay gis fas dem fi ba Tamba te yeb 60 personnes preuve mënul weesu auto romb la ma won le pneu yi mu usé nga xamanteni mën na toj à tout moment te carte grise bobu visite technique bi service de mille len ko koy joxe ñen ñoko koy jox ñooñu kan lañuy ñuy liggéeyal état bi lañuy ñuy liggéeyal parce que 2000 francs ya ngay dagg timbre

carte grise bu ñew auto ba ñëwul ñu defaral la visite technique bari na car yu daw fi wala bus yu daw fi yalla mutim xam na ni même bo xamul dara ci transport xam nga ni ki warul daw benen potif bi policier bi nga xamanteni ni mo moo nekk ci kaw tali bi nga ñew ma ñew taxaw ak sama auto nga dima contrôler ma jox la carte grise bi ci biir carte grise 1000 francs mo ci nekk lo xol ndax auto bi amna na pneu bi usé talu lo xol ndax pneu bi mëna dem wala mënul dem nga jël sa 1000 francs delloo ma sama carte grise yow tamit benn bakken bu ci dee c'est tu es responsable gendarme bi la même chose service de mille ñi nga xamante ni ñooy joxe permis nga jël koo xamante ni léegi sa permis balaa ngaa dem service de mille xam nga ñaata kon nga war a def ak ñaata conduire

xam na ni mënuñoo jàll kot mënaguñoo dawal ñu ñu dem neexalaate wala ñu raxas oto wala ñu lang car wala ñu def leneen wala koo xamante tailleur la dem na ba tailleur bi doxatul ci moom mu ni dem defi transport koo xam maçon la woon dem na ba maçon bi doxatul ci moom mu ni dem defi transport mel transport moom te transport mooy nan laa ko mën mooy entreprise bi nga xamante ni moo gën a la ñu waroon a jox cër parce que ay bakkan ngay yeb responsabilité mënul wess yow nga bus bo xamanteni 60 personnes la nga jël parabus bi taf ko bam fess ay photo yow touti ngay gis doyu la nga jël ay entrepreneur def ko ci kaw ba nga xamanteni auto bu ndaw bi ngay dajel muy ñew soko ko mom dotul gis dara nga romb gendarmerie bi romb policier bi mom liko intéressé 1000 francs bi nga koy jox wala 500 bi nga koy jox joxatul nit ñi ben cieur nga dugg biir dakaru fi arrêt bo ci dem dañ koy jënd motax auto yi di def lu leen neex yow léegi am nga tata am nga taxi am ay dem dikk am nga njaga njaay léegi nga dolli ci ay minicar yoo xamante ni dañuy ñëw dugg ci seen biir ak ay clando yoo xam ne dañuy dugg ci seen biir di romb gendarmerie bi di jënd arrêt yi ñu leen di bàyyi ñuy dawal nu mu leen neexee di xëccëkkante ci kaw tali bi yow mi yor oto bu baax sax suñuy ñëw boo amee priorité da ngay taxaw bàyyi leen ñoom ñu dem pourquoi parce que ñoom jànguñu code amuñu formation defuñu dara xoolal chauffeur dem dikk bi suy dawal ni muy dawale parce que dañ ko defal formation même bu dee 3 mois yow yu ni ko nag yàkkamtiwuñu la lu circulation bari bari bari mayuñu la sax nga wàcc mais transport yëpp noonu lañ ko waroon def mais waruñu banaliser transport bi rek ni dem dikk nañ leen defal formation ñeneen ñi si des ay bakkan la ñuy yëpp te ñeneen ñi si des li ñuy yëpp ci ay bakkan sax moo ëpp fuuf li dem dikk bi di yëpp kon tra xoolaat leen transport bi xoolaat leen ni ngeen di joxe permis yi xoolaat leen ni ngeen di joxe carte grise yi visite technique yi xoolaat leen ko tegul ci yoon de. bu fekkee yéen ñi nekk ci kaw bopp état bi dañ leen a wax ni lépp mu ngi jaar yoon lépp jaarul ci yoon li daan am service de mille mu ngi fay am ba léegi visite technique ni ñu koy dexee dara dara jaaru ci yoon te soxlawul sax ñu leen koy wax ndax chaque jour ngeen génn dajeeg oto boo xamante ni leer na leen oto bii amul lumière amul dara ku mu dajal ci àll bi rey na la nga dee te yéen a koy teg seen bët kooku fan la jëlee fan la jëlee visite technique te pourtant ngi romb Dakar ba ba ngay yegg jam ñaajo soxlawul may génn ci àll bi yaa ngi romb ay policier dañ leen di arrêté lañuy def duñ ko gis mais ñun xam na nu mu def parce que danoo nekk ci milieu bi kon état bi wàccaatal wax ak waa service de mine ñuy defar permis yi ak ñuy defar visite technique yi ñu teg ko ci yoon oto bu mënatul daw nañu ko gaare waaye mbalit boo xamante ne nii yéen a ngi wax oto boo euh, oto yu matul ñu dépassé huit ans warul dugg biir Sénégal mais oto yi daw Sénégal quarante ans ñu retapé leen retapé waat leen retapé waat leen ñoo ñoo gën a tardé circulation bi nañ fi jëlee oto yooyu ba pare oto yi nga xamante ni boo xoolee seen carte grise waxuma la Europe de mais Sénégal daw nañ fi 40 ans te chaque jour ñu leen di retapé waat oto boobu day dem ba frein mënatu ko am bu baax embrayage du lenn lu muy am lu baax kooku pour mu rey nit yomb na même que kay dawal bu ci deewee sax yow tu es responsable kon nañu xoolaat fi permis yi jóge xoolaat fi carte grise bi jóge wax ak policiers yi toog taxaw ci tali bi nga xamante ni dara intéressé wu leen su ma nee policier nag man ñi taxaw ci tali bi laay waxal te j'assume te ma ne war ma preuve ma jàpp sa loxo ànd ak yow nga gis ma la ci ay arrêt yoo xamante ni arrêt bu ci nekk ka fa taxaw dañ koy jënd suba gi 1000 francs oto bi day daw yow oto boo xamante ni jënd na arrêt bi 1000 francs ça veut dire que kooku nu la neex la lay rombe day surcharge waxatoo leen ci surcharge bi dara tey la waalo gën a aay oto yi dañuy surcharge parce que gendarme bi ñuy romb wala police bi ñuy romb ca suba seen premier voyage dañ koy jox 1000 francs pare na ci li jëntiwu leen am na ci koo xamante ni fii la nekk syndicat day ànd ak ab booyam sax booy bi mooy taxaw mooy encaissé yor fooyam mais loolu nga ne yow policier nga da dangaa waat war a aar askan bi ngay def loo xamante ne day lor askan bi te li may wax nëbbu ma si dara te ku ma ni won ma preuve ma won la preuve damay wax rek juste parce que am na ñoo xamante ni xëy na boo waxee ñu ni ñoom ñu ngi ci seen liggéey yëguñu kon nag ñun ñi nga xamante ni nii yàlla def na dimbali nañu ñu teg ñu caméra ni ñu wax leen dañuy wax te li ñuy wax wutuñu si lu neex ma sàmba wala lu naqari ma demba saaga wuñu fi waxuñu fi. ñu ngi leen di jégalu encore une fois di leen ngeen ñaanal ñu di leen ci yéen ñaan di leen ñaanal. bon c'est une télévision une Vision Média ñoo indi woon seen